mbokk internet yi maa ngi len di nuyu te di rafetlu bu baakha a baax ni ngeen di ande sa su ak programme 5 TV ma ñëwaat ak yeen ci décortique bi ñu len di defal série Karma tay nak mu yemoog épisode 12 bi ñu door ko ak séquence bu ñëkk bi ah, ñu gis ni Ahmed ak Bassir ah, ñom nek nañ rek ay vrai responsable nek ay kalifa yu mat kalifa nek itam ay papa yo xamni yu mat papa lañu ah, parce que tay nyongi ni lepp lu ñu mën ñoo ngi koy def rek ngir dal di wat seen famille ndax xamnañu ni mu muy euh, Majib wala muy Amileya ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am nga sentiment ci sa morom euh, donte nag bëggoo koo nangu euh, parce que ñoom ñaar ñëpp orgueilleux te ku ci nekk rek sa intérêt moom ngay jiital te kenn nag bëggul dellu ginnaaw waaye ñoo ki nga xam ni moo di Ahmed ak Bachir ñoom ñoo ngi leen di naxtaan di wax ak ñoom te it nag di leen woon carrément que ni ñoom ñoo leen mag ñoo leen ëpp xel ci àdduna di leen jox ay conseils yoo xam ni buñ ci toppee rek duñu juum jàll ci beneen séquence ñu gis ni Malika euh, moom euh, dafa mel ni rek ami neexu ko wala nag dafa am ay sentiment ci ki nga xam ni moo di Majib ba tax nag mu mel ni ku xaw a jalouse ci ki nga xam ni moo di Ami euh, ba tax nag mu koy jaarale ci Anna Eva ngir woon Ami Leya ne ko rek Anna Eva dafa am rek place ci këram ndax Anna Eva li nga xam ni dund na ko ak Malika tax na nag mu am mu daal di koy bëgg ba ndax ki nga xam ni moo di Malika itam mbëggeel googu rek la ko wan waaye nag lépp nag da koo def tey ngir rek naqaral ami ndax xam na ni ami itam euh, Anna Eva rek euh, moom moo fees ci xolam euh, te it nag du ko nangu bokk ak beneen jigéen Mazib nag moom malgré tout malgré que ni nangu na ki nga xam ni moo di Anna Eva dem dëkk ak ami pour quelques jours xamal na ko carrément ne rek papa li ñu wax moom moo tax mu daal di koy nangu ndax ki nga xam ni moo di Mazib dafa mere ami ba futtu ndax rek mbirum dorog bi nga xam ni moom la waxoon ci tribunal ba mu mel ni kon du démbam bi nga xam ni moom lañu ko fàtt mottali nekk na lu ko métti ci xolam ah, ba tax nag euh, bëggul baal am yi ba tax ba bëgg koo topp ba mu sës ñu jàll ci euh, Sali Diop ah, moom nag expliqué na lépp li nga xam ni euh, moom la abu di liggéey ak ni mu koy doxalee ak ni muy gérer liggéeyam ñim ciy lëkkalool ak ñëpp daal dina koy expliqué Virginie ah, ba tax nag ñoom ñaar ñu bëgg commencé rek topp ki nga xam ni moo di abu ngir daal di koy daaneel dàqu sax nee nañu ba dem ci police ngir rek lëkkaloo ak ñoom waaye Sali Diop baax que ni Abou dafa puissant te foo dem rek euh, jënd na leen bu yàgg yàgg euh, loolu moo tax kenn mënalu ko dara ci euh, liggéeyam waaye nag comme ni ñu koy waxee rek Sénégal wala nag àdduna bi ñëpp rek ànduñu daal di jubadi wala nag ñëpp rek nga mun leen a jënd ndax am na ñoo xam ni éthique ak déontologie moom la ñuy jiital ci seen liggéey kon yaakaar naa ni rek abu bësam moom moo jotagut waaye bés bu jotee li koy daaneel lu yomb lay doon ndax doole kenn amu ko Mazim nag moom moom ak Amy Léa gis nañu ni ñoom ñoo yem jikko ndax ñoom ñaar ñëpp ku ci eh, ŋànk rek eh, faaw mu dagg eh, doo bàyyi rawatina nag ku ci nekk day wane ni mu toll bëggul rek moroomam yàpp ko benn yoon loolu nag tax na lépp lu ñuy régler rek ci xët-xët lañ koy régler ak xol bu tàng loolu moo tax nag ñoom ñaar saa ne rek si njuumte rek la ñuy nekk ba tax nag ki nga xam ni moo di Abdou Mazib moom depuis bi nga xamee ni Amy wax na waxu drogue bi nga neexatul loolu nekk na loo xam ne lu ko métti la ba tax na mu bëgg kut ko kut daal di fayu ci ki nga xam ni moo di ami ñu jàll ci beneen séquence pour la première fois nag ñu gis ami Leya daal di góor parce que à chaque fois buy waxtaan ak xaritam yi góor buñ munti wax rek da lay sikkal waaye moom comportement Lamine këni euh, rek dafa bañ ki nga xam ni moo di may di ko soutenir daf ko cee comprendre te it nag moom la ci euh, jàppale ndax xamle na ni euh, neexul yow miy jëkkër yoroo dafa neexul si xol mu mel ni kon moom moom rek moom moo ko comprendre parce que loolu dafa xaw a niroog jikkoom ndax moom Amy Léa du nangu rek kenn di ko yor di ko toppatoo mu mel ni kon euh, ki nga xam ni moo di Mamadou Lamine euh, jikko bu baax bi nga xam ni moom moo nekk ci moom euh, tax na rek ki nga xam ni moo di Amy moom du ko wax dara lu ñaaw ndax ñeneen ñi nga xam ni ñëpp ami da leen di sànni xeer wala wax si ñoom lu ñaaw buñ ko seetee ba ci biir itam seen jikko nekkul loo xam ni rek lu baax la ñu may ak rakkam euh, nekk nañ rek di dund loo xam ni lu métti la euh, parce que may bu ñu fàttale ko avant moo dem sëyi kër gi nga xam ni moo nekkoon kër yaayam sonnoon na fa torop li ko waral nag mooy euh, seen papa bu góor sëyul ak seen yaay parce que dañoo divorcé seen yaay dugg ci beneen sëy muy loo xam ni nag bëri na ci société sénégalaise bi ndax d'habitude góor day fekk jigéen boo xam ne dafa divorcé ak ay doomam mu takk ko ba pare waaye du xajoo doom yi maanaam doom yi daal gis leen ak gis bu ci lay yemale bëgg ginaar euh, bëgg ay euh, nenam waaye nag euh, mel na ni loolu moom bëriwul liñ koy gis ci réew mi d'habitude njaboot googu sonn rek la ñuy def ndax ki nga xam ni mooy seen papa yi jiitle du leen jàppee comme seen doom ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni Bathie ak Lamine seen waxtaan nekk na loo xam ni lu am solo la parce que Bathie xamal na ko ni fii ci réew mi boo fi baaxee ñu teg la dof boo bonee nag seen lay doog a jox cër parce que Bathie moom comme ni mu expliqué nekk na koo xam ni borom daraja la waaye kenn joxu ko cër parce que nag dafa baaxoon dam ëpp ci alalam ak ci léppam ah, tey nag looloo tax mu bëgg a soppi ah, doxalin mu mel ni kon parfois nit dina soppeeku fekk société bi moom moo koy ah, soppi ndax bàcci yoon bi mu bëgg a jël nekkul yoon boo xam ni moom la xamoon ba tax nag ki nga xam ni moo di Lamine nar na am problème parce que bàcci dina ko topp ba mu sës xamal na ko ni rek dina ko fay xaalisam ci ni mu gën a ñu jeexal ak séquence xolu ki nga xam ni moo di Mazib ca la bëgg a dugg euh, te it nag gis na ni euh, maire Aïda da ko daal di apprécier ba tax nag mu bëgg a réconcilier euh, ay maire Aïda ak Mazib ndax xam na ni ñoom ñaar bu ñu juboowee rek boobu li mu bëgg dina ko mën a am mu mel ni kon Malika ñaari kanam la yor maanaam rek day def lu baax waaye lépp lu muy def rek ci suuf am na loo xam ni moom la ca nas loo xam ni intérêt am la kon mbokk internet yi dañ leen topp rek ba xam fu waaneen di mujjee ki ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf et à très bientôt allah.